yenn yéen a déggandoo tey à 14h discours bi nga xamante ni moom la le président de la république def ak li mu ci wax yëpp waaye loolu nekkul loo xam ne ñi engagé nañu donc loolu moo tax tey candidat yi nga xam ne nii ñoo fi daje tey ñu am yéene jàkkaarloo ak presse bi wax ak ñoom am na yeneen candidat yoo xamante nii. amoon nañu yéene ñëw waaye da ci am ñu bëri ñoo xamante ni ñu nekkuñu ñoo am ay contraintes ci heure nga xam ne bi mënuñu teew donc euh, nous allons commencer par l'intervention des différents candidats par le euh, représentant du candidat Bassirou Diomaye Faye Amadou Ba Après, ce sera au candidat, le président Aliou Mamadou Dia. Après, au tour de, du président Cherti Diandier. Après Cherti Diandier, ce sera au tour du président Détiéfal. Après le président Détiéfal, ce sera au tour du président Pape Dibrilfal. Après Pape Dibrilfal, ce sera la présidente Anta Babakargo. Et après Anta Babakargo, le représentant du président Khalifa Sall, puisque il devait être là, mais malheureusement, je pense qu'il est parti à la RTS euh, pour faire son enregistrement et donc il est représenté par le maire de Diopel, Cher Gay. Après euh, Cher Gay, ce sera le président Carlo Alassansal et enfin le président Alexis. Et nous donnerons la parole à la fin au doyen euh, euh Tin pour qu'il puisse lui aussi intervenir Et euh, voilà, donc je ne vais pas tarder, je ne vais pas trop euh, je laisse la parole au candidat. On commence, comme je l'ai précisé, par Amandouba. Ok, ok, ok, très bien. Très euh, bonjour à tous et merci d'être euh, présents si nombreux. Euh, donc c'est à Mosba, je suis le mandataire du candidat Bassirou Diomaye Faye. Et je viens ici parler au nom de la coalition Diomaye Président. Comme tous les Sénégalais, je pense que nous avons été tous surpris par cette décision et unilatérale du président de la République de reporter l'élection présidentielle. Les candidats à l'élection présidentielle ont décidé de se réunir en urgence tous ceux qui pouvaient être là et décider de parler d'une seule voix sur les voies et moyens à mener pour s'opposer à cette décision unique, arbitraire

aucun texte ne lui donne le pouvoir de reporter l'élection présidentielle. Ça n'existe ni dans la Constitution, ni dans le Code électoral. Par conséquent, la coalition Yomaï Président se ralliant aux autres membres, aux autres candidats ici présents et ceux qui ont donné le rapport rejette fermement cette décision du président de la République. de reporter l'élection présidentielle. La coalition Diomaye Président engage tous ses militants à poursuivre la campagne électorale ce soir à partir de minuit, comme c'est convenu par la Constitution et les textes légaux et réglementaires. Nous rappelons que seul le Conseil constitutionnel, dans des cas bien précis et identifiés dans la Constitution, a le pouvoir de suspendre l'élection présidentielle. Il ne revient pas au président de la République ou au Parlement par des artifices politiciens de, de créer artificiellement une crise institutionnelle ou dysfonctionnement de quelques pouvoirs. Je rappelle que l'Assemblée nationale continue à se réunir régulièrement jusqu'à monter une commission d'enquête, jusqu'à déposer un projet de loi en urgence. Donc l'Assemblée nationale fonctionne. Le Conseil constitutionnel également. L'administration territoriale a reçu le matériel pour la campagne électorale. Nous estimons qu'il y aura une continuation de la campagne électorale. Et dès demain, les, la caravane Diomaye Président, à l'instar des autres, sillonnera les rues de Dakar pour montrer que le processus électoral ne s'est absolument pas arrêté par cette décision illégale du président de la République. Par ailleurs, nous engageons l'ensemble des Sénégalais à résister à cette décision. Nous ne pouvons pas laisser à l'Assemblée nationale, dans des conditions obscures, augmenter le mandat du président, ce qui est totalement interdit. Il faut que l'on soit conséquent aussi, nous, le peuple sénégalais. Ce qui va se à l'Assemblée nationale n'est rien d'autre qu'un artifice pour faire revenir par la fenêtre le troisième mandat que tout le monde a honni par la porte. Nous disons que on ne peut l'Assemblée nationale ne peut pas violer l'article 63 de la Constitution qui interdit toute prorogation du mandat présidentiel. Par ailleurs, il n'y a pas dans le projet de révision de la Constitution ni le parrainage qui est à l'origine de tout ce problème, ni des conditions de sa modification. Il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, c'est permettre au président de la République d'acquérir suffisamment de temps et d'énergie pour s'en prendre à d'autres candidats et installer une présidence à vie que le peuple n'acceptera pas. Je vous remercie. waaw asalaamaaleykum mbokk yi may wax rek à la suite de Amadou li nga xam ni tey ci suba moo dal ci Sénégal muy naqar muy tiis muy metti metti boo xam ne dafa dal ci ñun ñëpp avant ñu nekk ay candidat à élection présidentielle ay sénégalais lañu d'abord te li dal tey ci Sénégal ñun ñëpp la naqar may wax ni réew mi dafa am ñun tout seen dafa am ñu sacrifier seen seen àdduna dafa am ñu sacrifier seen famille sacrifier seen bopp pour Sénégal nekk Sénégal depuis indépendance ba léegi jàpp ñu ne am na benn nit boo xam ne war na dogalal waa Sénégal li nga xam ne moom la ñu bëgg président Macky amul benn droit du constitution bu ko ko jox du loi bu ko ko jox décret bu mu mën a signer boppam bu ko jox doole li mu def li mu def tey ñu jàpp ne dafa jalgati suñu constitution dafa jalgati yoon loolu nag waa Sénégal yëpp la naqari may wax ne président Macky Sall Sénégal jox nañ ko lépp Sénégal defal nañ ko teraanga bu nekk le peuple sénégalais ne mérite pas ce que le président Macky Sall a fait aujourd'hui Nous sommes un grand peuple. On doit avoir des dirigeants dignes de ce nom, mais pas des dirigeants yoo xam ne dañu jël le pays jël les Sénégalais en otage jaaduwul donc ñun ñun ñi ñëpp daje fi ak ñeneen ñoo xam ne dañu ñëw fekk si ñu wala ñëw ànd ak ñun ci combat bi nga xam ne moom la ñuy wër ñu rejetons et fermement li nga xam ne moom la def tey Amadou wax na ko. campagne électorale bi minuit lay commencé tey bu subaa incha allah dinañu campagne bu subaa li nga xam ne loolu lañu constitution bi jox loi jox ñu ko règlement jox ñu ko dinañ ci taxaw subaa ñu si suñu campagne incha allah donc di wax sénégalais yi ne leen lii xew tey du problème mu opposition du problème mu candidat mais problème mu waa Sénégal yëpp la sànq damay wax ni mbéjum kanam borom ma koy fayal boppam sénégalais yi dañu war a mobiliser wu ñëpp muy fii ci Ndakaaru muy ci région yëpp ñu mobiliser wu pour récupérer suñu souveraineté parce que loolu moo jaadu le président Macky Sall ne peut pas prendre le peuple sénégalais en otage du ñu ko nangu donc sénégalais yëpp bëgg naa ñu mobiliser wu ba li nga xam ne noonu la ñu tënkee suñu ay loxo ak suñu ay tànk bëgguñu imposer loo xam ne c'est pas démocratique du loi moo ko tëral du constitution moo ko tëral ñu xeex ko te jëlee ko bu ñu jógul leneen a ngi ñëw te looloo gën a doy waar donc ma jàpp ne mobilisation bi ça doit être une mobilisation totale et générale de l'ensemble du peuple sénégalais li ñu bëgg di ko xeex ci démocratie di ko xeex ci liberté di ko xeex ci sunu réew baax ci sunu réew tegu ci yoon réew mi nekk un pays de liberté un pays de démocratie mais surtout un pays d'état de droit parce que ñun loolu lañu gëm parce que yeneen réew mi koy def te ëpp ñu ñu xam-xam ëpp ñu ñu patriotisme ci sunu réew donc loolu combat la boo xam ne ñun ñëpp ñoo koy allah donc may encore une fois di wax ne ñun en ce qui nous concerne bu subaa dinañu commencer sunu campagne am na nag ay dispositions yoo xam ne bu soobee yàlla daañu ko jël mais ñuy appeler à tout le peuple pour que ñu bàyyi xel fi nga xam ne fa la ñu jëm ñëpp wu ba ñu jotaat suñu liberté doxal suñu réew ni ñu ko war a doxalee bay gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum mbokki Sénégal. mbokki sénégalais yi ci biir réew yi ak yi ci bitim réew sénégalais yi ci dëkki taax yi ak sénégalais yi ci kaw bi maa ngi leen di nuyu ak xool boo xam ni xool bu naqari la maa ngi leen di nuyu ak xel moo xam ni xel mu jaxasoo la waaye maa ngi leen di nuyu ak fit ak jom ak ngor ak fas yéene taxaw ci kanam Macky Sall pour gàntal pexe yi nga xam ne def na ko ngir nërmeel suñu démocratie nërmeel suñu état de droit nërmeel réew mi nërmeel lépp lu baax loo xam ne fekk na ko président Macky Sall ñun ñoo ko fal en 2012 ñu jox ko mandat mandat bi mu fekk ko fi muy juróom-ñaari at mu taxaw ci kanamu sénégalais yu waat ni ñu mandat bi ma fekk muy juróome ñaari at dinaa ko def juróomi at weddi kàddoom war ñu ñu bàyyi ko mu falwaat deux mille dix-neuf mu am cinq yu mu war a def cinq yooyu constitution ko tudd cinq ans yooyu constitution moo ni boo defee cinq ans yi amoo droit teg ci ñaari fat cinq ans yooyu constitution moo ni boo ko defee mënatuñu sax réviser loolu fa kon président Macky Sall bu ñu yeggee 2 avril incha allah mënatul fexe ba nekk président de la république du Sénégal ñaari minute duñ ko ko may ndax li président Macky war a xam mooy réew démocratie état de droit ak république di ko ne dañ ca la dañ la cee war a jox dañ la cee jox sa cër sa responsabilité ak sa posture ci processus électoral bi moom président de la république lenn rek la ci amoon mooy convoquer le collège électoral jël na décret woo sénégalais yi ni leen bés sangam di ngeen dem voté ji tànn ki leen doy ngeen fal pare na ci leneen lu mu ci jéem du cëram amul benn droit amul capacité amul yoon mu ko ko may pour mu ni dina dàq élection mbaa dina ko reporter mbaa mu koy annuler mbaa neneen nu mu ko mën a tudde amu ci droit moo tax may wax sénégalais yi ni man day Cheikh Tidiane Dièye ak képp ku gëm li ma gëm ak képp koo xam ne gëm nga ni ngor des na ci réew mi coom des na ci réew mi te bu ay noon jóge woon ci biti bëgg ñoo def jaam nga xeex ba joxe sa bakkan nga gëm ni lii Macky Sall bëgg ñoo def comme mbiru njaam la dañ maa convoqué ma nekk candidat war a dem élection war a dem campagne électorale ñu fixé ko conseil constitutionnel ba nga xam ne moo ci am cër fixé ko danaa dem campagne électorale insha allah suba may ñaan askanu Sénégal ñu xam ni cër bii fi ñu toll temps bi taawu peuple bi du taawu Macky du taawu assemblée nationale du sax taawu conseil constitutionnel bi nga xam ne dafay yomb yombal rek mbir mi taawu askanu Sénégal askan woowu nag moo war a taxaw ngir gàntal pexey Macky comme ni ko leader yi waxee na ngeen ñu déglu ku ci ne ci ñun suba di nga jël sa responsabilité ndax décret wu Macky Sall bi c'est nul et de nul effet kon danañu dugg ci campagne électorale bi ci jàmm di ñaan yóbbu ko ci jàmm may woo askanu Sénégal fépp fu ñu nekk nañu génn taxaw ànd ak ñun ci caravane yi ñu baat campagne maa ngi ñaan force de défense et de sécurité du Sénégal ñu xam ni comme ni leen ko Macky Sall waxee woon en 2012 bi ñu àndee comme jàkkaarloog président ci ngor Macky Sall ne woon na leen xam leen ni askan wi ngeen fi nekkal xam leen fi seen peuple ngeen fi nekkal te bu leen dal mukk ci kanamu peuple bi di ko di ko lor ci njëriñu benn président benn nit boo xam ni peuple bee ko fi teg loolu laa leen di delloo yooyu kat communauté internationale ba leen bi wax ni ñëw leen lii ngeen wax ak Macky Sall balaa ëllëg ngeen di fay ay taal ay taal maa ngi wax kilifa diine yi may daaneele foofu fii ngeen toog jox nañu leen cër ormal nañu leen yaakaar nañu leen réew mi fii mu jëm te Macky Sall di ko fa yóbbu bën ko seetaane mu yóbbu ko fa ëllëg seen i njaboot ñoo ciy lor te Macky Sall du mën a texe du mën a wax du mën a jëf ba nga xam ne fii Sénégal yi bëgg a jëf du ca yegg kon asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di sant di leen gërëm. merci beaucoup. on n'a pas le temps. on n'a pas le temps. je pense qu'il faut les peut-être là où l'esprit mooy ku nekk cinq minutes nga am. ak ki ngeen yi mais aussi leen mastaw. mastawu parce que élection présidentielle pour ay candidats rek lay jëm Sénégalais yëpp lay mobiliser ay année année et il faut ñu def ay rappel yu am solo mooy quand même nekk am na lu leen metti parce qu'on parle du Sénégal. Sénégal mooy réew mi nga xam ni plus de cent ans ñaari chef ñoom fii woote Sénégal mooy réew mi nga xam ni am na ñaari alternance pacifique saluée par tout le monde Sénégal mooy réew mi nga xam ni au moins benn élection dañ ko mos stabiliser depuis que ñu am indépendance ba tey muy l' élection présidentielle je rappelle parce que j'étais là en 93, de fortes tensions ont existé et le processus n'a pas été suspendu. J'étais encore là en 2012, sous les lacrymogènes, ici, à la place de l'indépendance. La crise était là. Il y a même quelqu'un, un ancien chef d'État qui avait fait le déplacement pour reporter les élections. Mais les élections se sont tenues et le président ma Sall est devenu président de la République en deux mille vingt quatre crise am na fi ku mën wax crise am na fi malgré l'injustice contre des candidats qui devraient en principe participer ces candidats ont fait preuve de patriotisme ont désigné d'autres dans le parti pour que justement les élections s'organisent qui peut me parler de crise aujourd'hui qui peut justifier qu'une élection aussi importante puisse régir la respiration démocratique dans un pays, nous qu'elle suspendre. non-candidat demande à 20 que vous n'avez pas battu dans non-candidat demande à 20 qui ont régulièrement passé toutes les étapes du processus de ne pas s'adresser aux Sénégalais. sans avoir à se concerter avec eux. Et je parle toujours d'un organisme. Quelqu'un qui est à deux mois de son départ demande à 20 candidats nga xam ni kenn ci ñoom il allait être à cinq ans du début de son mandat de ne pas battre campagne dans quel pays toujours dit le président Macky Sall dafa nangul ci politique il a eu la chance et la bénédiction de Dieu d'avoir fait huit ans avec le président Wade, trois ans seulement d'opposition et d'être devenu président de la République. Voilà ce qui explique ses rapports avec les institutions. Voilà ce qui explique ses rapports avec la démocratie et les libertés. J'en suis à ma 20e année d'opposition et j'en suis extrêmement fier. ku mel noonu dafa jot ñu wax ko boppam wax ko boppam mooy il avait pris l'engagement d'observer et de faire observer Aujourd'hui, il n'a pas respecté cet engagement. Mais nous, qui avons fait régulièrement toutes les étapes du processus, ce pas aujourd'hui qu'il va nous demander de nous arrêter. Demain, ici, sur la VRN, nous avons retenu ensemble de démarrer notre campagne, de nous adresser aux Sénégalais qui nous ont fait confiance et qui se trouvent dans les villes les villages et les amours les publics et ñoom ñëpp ñoo leen di wax ñu mobiliser wu pour que campagne électorale bi mën a jaar ci yoon dans la paix comme on l'avait voulu donc le président Macky na xam ni moom moo wax laka neex mais la mu wax ñun di candidat di nga xam ni conseil constitutionnel bi ko jox la possibilité de s'adresser aux Sénégalais c'est ce même conseil constitutionnel là qui nous a donné la possibilité de faire et donc li ko conseil boobu permettre mu wax même conseil constitutionnel bu woon permettre pour que ñu mën a commencer campagne et on va commencer notre campagne di wax sénégalais que le président Macky Sall jeexal na pare le président Macky Sall jeexal na pare kon li xew nii dina dina ko def mbiram di leen di leen di leen seet asalaamaaleykum mbokku Sénégal ñu si biir réew mi ak ñu nekk si bitim réew ñoo ngi euh, li nga xamante ni moom moo dal ci réew mi comme ni ko sunu naataango yëpp waxee noonu ñu ko waxee noonu la ko réew mi yëpp waxee ndax bi mbir mi wàccee ba tey sénégalais yi nekk si biir réew mi ak si bitim réew yëpp ñoo ngi woote.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 salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum euh, yéen ñu nekk ci presse bi au niveau national comme international ñu leen di nuyu di leen sant di tàmbali fàttali ne suñu woote tey bii li ko waral mooy ñun candidat yi nga xam ne waroon nañu dem tàmbali tey si guddi suñu campagne électorale. bu ñu dégloo la président Macky Sall dañoo décidé dañuy def benn front un front de l'opposition pour wax benn kàddu wax benn say ne lii nga xam ne wax na ko ñu mënuñu koo dégg te mënuñu koo nangu ndaxte nag conseil constitutionnel dafa am lu mu tëral ne jaar leen ci yoon bii ak bi ak bi boo leen bëggee nekk candidat ñu nangu ko wóolu ko lim ñu teg ñu jaar ci yoon woowu ba conseil constitutionnel pare dañu yéen yéene candidat yi war a dem élection présidentielle Macky Sall ne nous a pas désigné comme candidat à cette élection présidentielle il ne peut pas aujourd'hui munta taxaw décider ne que ñun duñu dem ci élection yi tey dañu am rendez-vous avec le peuple dañu am rendez-vous avec les Sénégalais tey à partir de minuit maa ngi woo ñëpp ñu nekk ci le mouvement Aar alternative pour la relève citoyenne di woo suñuy militants suñuy sympathisants di woo ñi nekk ci coalition de la relève ak Anta Babacar nañu jàpp ne campagne présidentielle dina am te tey lay tàmbali ci minuit ñi ngi xaar mu génnee décret nous allons attaquer ce décret parce que teguñu fi bi ñuy jug di investir ne dañu bëgg a taxaw liggéeyal suñu réew tàgguwuñu ko laajuñu ko abeewam dañ see dugg ndax suñu devoir la suñu responsabilité la te du moom moo ñu tax a delloo ginnaaw lim fi def ba coono am ba ay xale dee ndaw ñi di jël jaral leen ñu dee ci géej gi dem bitim réew nit ñi di jooy ndóol njàng amul faj bu amul Sénégal toll fi mu toll si njàqare tey ñu taxaw bëgg ñoo imposer une nouvelle forme de troisième mandat duñu ko nangu ñoo bañ ñoo bañ ñoo bañ et on interpelle la communauté internationale ñi ngeen ñuy dégg voici le bilan du président Macky Sall et c'est dommage et c'est regrettable parce qu'il a failli il a failli partir au moins avec la tête un peu haute mais là malheureusement, il vient de montrer le vrai visage. Les masques sont en train de tomber. Il essaie de faire un hold-up électoral. c'est un coup d'État constitutionnel. Et nous ne l'accepterons pas. Nous sommes des citoyens sénégalais avant tout, avant d'être des politiciens ou des candidats. Nous sommes la jeunesse, nous sommes les femmes, nous sommes les dignes fils de ce pays. Et nous avons le devoir de répondre à l'appel de notre peuple. Le président dégluwuñu ndaw ñi depuis ñetti at ñeenti ñeenti at ñii yuuxu nañu ñii jooy nañu ñii dee nañu lu ne xew na muy woote ay dialogue ak i waxtaan ak i conseil ban solution benn solution xool leen li xew tey mu ne ñan la waxtaanal mu ne ñan la waxtaanal waxtaan na avec les présidents des institutions waxtaan na ak conseil constitutionnel et cetera et cetera mais dafay fàtte waxtaan bi ëpp solo mooy waxtaan bi avec sénégalais dégluwul xamul lu xew ci réew mi lii munta ne fukki at ñaar dañ koo muñ dañoo toog di ko muñal ba waxtoom jeex 2012 bi mu koy wax vidéo yaa ngi fi ñun nag ay ndaw lañu dañ lay vaar yaa ko fi waxoon maa ko fekkee maa la dégg ñoo la dégg yaa ne doo may Ablaye Wade une minute de plus mayuñu la seconde mayuñu la Sénégal ay poñu nit moomuñu ko ku xamul li xew ci monde bi da ngay jaaxle du ci Sénégal kese Afrique ndaw ñi nit nit yu Sénégal nitu Afrique seen xel yi dañoo ubbeeku li ñu mënoon nangu ci ay at ci ginnaaw mënatuñ koo nangu te daf ñoo jaral lépp ndax bëgg gi ñu bëgg suñu réew gëm gi ñu bëgg gëm suñu bopp ak xam gi ñu xam suñu bopp ak suñu moomeel te duñu nangu nga koy bokkati ci suñuy loxo ni ko xeexee 2011 ñu jàppale la si nga xeex ko ba jàll loolu lañ koy xeexee ak yow ba mu mat sëkk ba nga jug abal ñu ñu assurer la relève et c'est la génération qui le demande. C'est demain, j'appelle tous les militants. dañ koy caravane ba mu sax sax mais on fii jàkkaarloog ñoom on la campagne présidentielle incha allah di nag euh, les autres candidats xam nañ ne que l'union fait la force merci. man maa ngi tudd Cheikh Gueye meeru Dieuppeul Derklé taxawal fii coalition Khalifa président Khalifa Ababacar Sall moom ci boppam moo fi waroon teew xam ngeen ni bi ñu commencé processus ba léegi ñu dëgmal campagne électorale bi dañu defoon tirage au sort pour xool candidat yi kenn ñu ñuy jàll ak ban waxtu la ñuy am au niveau de la presse ñàkkul ni jamono yi mu ngi ci yoon bi di def enregistrement mu ni nañ ko fi teewal àndi fii ak le maire Abdou Aziz di indi kàddu xalifa Sall kàddu xalifa président pour wax ni li ñu dégg ci président de la république mënuñu ko nangu mënuñu ci ànd ndax bu kàddu yooyu moo war a jib ci jamono bi ñu toll réew moom nga xam ni dafa dëgmal élection lu jaar fa ñu jaar yëpp benn lycée à quelques heures la campagne bi di ubbi nga ñëw indi ay mbir bëgg ci langaamu naan da ngay reporter élection yi loolu xel mënu ko nangu Sénégal dañ ko daan bàkk naan Sénégal réewu jàmm la Sénégal dañ ko daan bàkk di wax chantre de démocratie en Afrique Sénégal dañ ko daan bàkk naan contrairement à d'autres pays yi xam am coup d'état yéen amu leen mais tey jii boo nekkee ci réew mbaa nga génn bitim réew dañu lay dab di la woo naan la lu xew seen réew leen dab naam amu leen coup d' état militaire waaye tey lii xew mën nañ ko tuddee coup d' état institutionnel lii mooy indi njàqare ci réew lii mooy indi kawoo ci réew moo tax ñi ci war a wax nañ ci wax ñi ci war a jëf nañu ci jëf loolu tax xalifa président ni mi ngi woo les forces vives de ce pays mi ngi woo les patriotes de ce mi ngi woo les di de ce pour que ñu ànd doon benn boule pour faire face à ce que Macky Sall veut faire cest à lii xel mënu koo nangu nit mënu koo nangu maa ngi doon waxtaan ak léegi benn góor bu may laaj lii lu mu doon ma ne ko góor gi boo ko doon seet ci misaal dafa mel ni ay jullit yu jàpp ba set waxtu julli jot ñu war a ñëw julli imam bi ñëw nii tey julli amul fomm nañu julli loolu ndax jullit mën na ko nangu déedéet ma ni faw ñu julli bu ñu julliwul ci jàkk ji daañu julli ci jë jàkk jëli waxtu julli dafa jot te loolu may tuddee waxtu julli moom mooy campagne électorale bi nga xam ne moom la ñu dëgmal dara mënta ñu dugg ci biir campagne bi wan Macky Sall nit li ngay wax waxu kasaw kasaw la waxu ko daaju saret bi ndax ni ñu ko waxee amul lenn lu mën a tax ñu reporter élection nit ñaa ngi dem ak a dikk assemblée nationale mi ngi def liggéeyam conseil constitutionnel mi ngi def liggéeyam liggéeykat yi ñu ngi dem seen bérébu liggéeykaay jàmm moo am ci réew mi lan moo sabab ñu naan dañu reporter élection yi bëgg toogaat ci nguur gi bëgg yokk mandat loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba loolu tax ñuy woo bépp candidat ci élection présidentielle mais au-delà des candidats le peuple sénégalais debout comme pour faire face à cette forfaiture de Macky Sall. Nous disons non au report de l'élection présidentielle. Nous disons oui pour le respect de la Constitution. Je du Sénégal de la diaspora où que surtout ñu nekk diaspora xam naa ni seen yëpp mu ci réew mi et ils ont très et ils sont que nous-mêmes qui le vivons parce que boo nekkee bitim réew di dund su sori da ngay gën a nekk ci njàqare président Macky Sall dafa ne moom ak ñooñam ñu nekk CEDEAO que Burkina Faso dañ ko war a sanctionner parce dañu war a waxe kan la ñu war a dem élection te Niger jeune bu fa nekk dañ leen war a sanctionné parce que war nañu wax kañ la ñu war a dem élection te Burkina Faso Niger ak Bur euh, ak Mali wàccewu pays yooyu ay tibb dañ ko nangu c'est des pays en guerre récemment il est allé en RD Congo pour l'inauguration du du du président Tshisekedi C'est un pays en guerre et il y a eu des élections. La CDAO, avec les, certains chefs d'État, ont exigé des pays en guerre et ont soumis à un régime extrêmement sévère des pays en guerre pour qu'il y ait des élections. Dans ce pays, le président Macky Sall lui-même l'a dit, pas plus tard que quand il recevait récemment les recalés que lu conseil constitutionnel dogal man mënuma ci dara wéyal rek moo ci am boo ko wax wala waxu ko moo ko wax récemment ba mu recevoir les il a dit que ce que le conseil constitutionnel a décidé y a pas de ba mu nekkee mandatam dig sénégalais yi dina ko wàññi de sept à cinq ans mu ne mënuma ci dara te boobu mënoon na démissionner mu ne mënuma ci dara parce que décision conseil constitutionnel amul recours ma yokk ci nii moom moom moo waat ni day aar suñu constitution article 103 constitution ni amul benn prox ndol boo xam ne bu nga fa jaar pour yokk suñu mandat bi benn fan du moom du ñun ñoo ko koy may wala tere ko ko du moo koy may boppam wala tere ko ko constitution bi nga xam ne moo ko may kattan ak doole muy digle force de défense yi di jëfe ñeneen di jëfe constitution boobu moo ne mandat bi cinq ans la te kenn mënu ko réviser du parlement du moom du keneen donc bu violer charte boobu avec la complicité du parlement dañuy jàpp ni kenn waratu ko obéir parce que effectivement c' est un coup d' état constitutionnel lan mooy coup d' mooy nga jox sa bopp nguur wala doole goo amut bu fekkee ni constitution bi nee na la le 2 avril nga yem te yow si sa wàll bopp nga wax ko waxaat ko ñoo bëgg par des voies totalement illégitimes anticonstitutionnelles prolonger ce mandat-là avec la complicité d'un parlement c'est un coup d'état c'est de la haute trahison c'est ça la réalité et il faut le dire le plus clairement possible pour que Sénégalais comprennent ce qui se passe il a eu de préparation de ce coup d'État bi wax ay dañu war a reporter avant même que le conseil constitutionnel fixe la liste avant même les parrainages commencé woon nañu di ruumanaat nañu reporter élection yi ñoom ñoo xam lu tax ñun ñëpp xam nañ lu tax wax ko fii day gudd waaye yàgg nañu waajal reporter élection yi parce que musul préparer wu pour jógee ci fauteuil loolu mooy vérité bi donc bu ñu tollee fii tey mu ne day def loo xam ne constitution bi mayu ko ñun amuñu d'autre choix si nous sommes un pays d'hommes libres et dignes si nous sommes les dignes héritiers de notre démocratie et de ceux qui se sont battus pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays si nous sommes les Sénégalais fiers et orgueilleux dont on parle nous n'avons d'autre choix que de battre campagne électorale et de lui dire que c'est pas à lui de nous imposer avec un décret qu'il sait lui-même illégal parce que quand il que je vais prendre un décret qui dit sans préjudice de ce que le le, parlement décidera naka ngay jëlee décret te xamoo sax parlement ndax dafa dara rejeté loi constitutionnelle bu am déet mu ne sans préjudice on arrête la la campagne électorale on va attaquer ce décret là effectivement dinañ saisir conseil constitutionnel ci loi bi nga xam ne dañ ko fa nar wax leen ndax yéen conseil constitutionnel ginnaaw président nee na toog naag seen président conseil constitutionnel ndax yéen da ngeen di d'accord ci li président di ndax da ngeen nangu donc que yéen dañ leen ger ba nga xam ne situation bi graaw na ba xam ne war nañu reporter élection dinañ leen saisir mais opinion bi tamit war na leen saisir lu ci mën a am pour bañ a guddal mooy li yi wax demee campagne électorale day commencé ñu ngi ñaan sénégalais yi fépp fu ñu mun a nekk ci réew mi dëkk bu ñu mun a nekk nañu campagne ndax réew mi du réewum Macky Sall cinq ans yi amul lu ñu dund lu ñu mësat dund ci Sénégal des émeutes mu dugal système de parrainage honteux et odieux qui nous a conduit dans cette impasse terrible tout cela tout ce qui a notre démocratie c'est le président Macky Sall qui est l'origine avec des appels répétés au dialogue yoo xam ne fu muy mujjee mooy rendre encore la démocratie sénégalaise plus malade plus fragile plus minable donc un énième appel au dialogue ce sera pour les mêmes résultats en tout état de cause demain comme ni ñu ko waxee rendez-vous fii cimetière Saint-Lazare ñu def suñu caravane de l'ensemble des candidats. Mais ce n'est pas qu'un problème de candidat, du candidat direct. C'est le peuple sénégalais. C'est la constitution du peuple sénégalais. C'est le mandat du peuple sénégalais. C'est le pouvoir du peuple sénégalais. Donc on demande au-delà, aux forces vives de la nation, aux syndicats, aux jeunes étudiants yoo xam ne dañu tëj université yi depuis six mois Macky Sall taxawaay bi mu waroon wane pour étudiants yi reprendre faalewul loolu ñooñu ñi nga xam ne dañu toj seeni i kër ñi nga xam ne amuñu xëy yaakaaroon ni moom le 2 avril dina fi jógee beneen dudd commencé dañuy wax ñooñu ñëpp bu fekkee ni mbirum Sénégal yitte na leen bu fekkee ni lu ngeen di dund tar na ñu ngi leen di jox rendez-vous fii ci euh, euh, pont Saint-Lazare bi ñu xool force de défense et de sécurité à partir du moment où la constitution à laquelle vous obéissez Vous n'obéissez pas à un nom, à une constitution. À partir du moment où la constitution di que le terme du président de la République, c'est le 2 avril, le 2 avril, vous ne lui devez plus obéissance. Je vous remercie. asalaamaaleykum mbokk Sénégal wolof yi dañuy wax ñu ne golo ñu ne ko mën ngaa yéeg ñu ne ko sa ngembal bàyyi tàkk na waxit la ñun ñoo ne ñoo yore majorité Macky Sall bañ ñu bëgg ñoo xañ suñu at ak suñu yelleef dañ ko ko won jalaguñu tey jalaguñu suba ñu fi nekk ñi ñëpp wax ji jarul guddal de man duma ci sori campagne électorale minuit lay commencé yéen ñi leader yëpp ku nekk am nga musique de campagne sonorisation bu minuit lan yëpp rëkk ku am sabar tëggal ku am bool tëggal ku am daal di ndënd tëggal parce que campagne électorale commencé na tey à partir de minuit ñu mottali ko suba fii ci 3 heures. rassemblement de tous les candidats mais jéggi candidats yi ñëpp ñi nga xam ne dañu contre report de l'élection présidentielle et à ce rassemblement nous invitons les observateurs internationaux il faut que vous veniez constater l'état du processus électoral au Sénégal parce que vous étiez venu pour contrôler les élections. Vous ne pouvez pas vous absenter, à ce grand rassemblement. Nous invitons aussi à ce rassemblement de demain la presse internationale pour que vous soyez témoins des dérives autoritaires de Macky et de son pouvoir et de la régression démocratique au Sénégal li ma ciy teg rek mooy campagne électorale bi nga xam ne moom la ñu wax yëmul ci Ndakaaru rek mais sur l'ensemble du territoire national et la diaspora parce qu'on a huit département yu nekk dans la diaspora donc à partir de minuit je le répète campagne électorale commencé na fii ci Sénégal ku nekk la nga daan def ci sonorisation ci tëgg ci xumbal ci décliner ce programme na nga ko def salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. merci beaucoup on laisse la parole au doyen Habib Tine. jërëjëf man nag dama ànd ak parce que déglu candidat yi dafa am solo lool parce que ñëw kenn ci ñëw kenn ci ñëw le cinq mënoon naa nekk président de la république toog fu mu Sénégal bi ko xamee ak léegi lii mus fi am ñun rupture bi dañu gis ni c'est une rupture institutionnelle brutale et c'est une rupture institutionnelle que nous condamnons bu fekkee ne da ngay dem ba nga ne damay reporter ñii la gën a gën a concerné ñëpp ñii ñoom ñoom la ñu war a nañ woo wax ak ñoom déglu leen ñun ñu wax ak ñoom amul kenn ci vingt candidats yi ku d'accord ci loolu loolu du leer deuxièmement mooy lu am solo mooy problème mu droit de l'homme à liberté d'expression souvent bu fekkee ne li ñuy def dañ koy def dans la paix constitutionnelle boo xam ne moom lañ war a def te loolu tamit ñun ñi nga xam ne ñu toppatoo ak ak yelleefu doomu aadama ak liberté yi dinañ ko surveiller bu baax maa ngi leen di gërëm di leen sax merci à tous les candidats ici présents Et à, aux autres candidats qui auraient pu être là, ils eu des contraintes. Donc comme vous, avez pu le constater, l'ensemble des candidats qui sont aussi présents rejettent systématiquement le décret verbal qui a été euh, annoncé aujourd'hui à 14h par le président de la République. Étant donné que ce décret n'est pas du tout reconnu et rejeté systématiquement, l'ensemble des candidats si présents considèrent que le processus électoral continue Et cette continuation du processus électoral aboutit à, au commencement de la campagne électorale ce soir dès minuit. Ainsi, tous les candidats si présents et ceux qui n'ont pas pu être là appellent tous les Sénégalais à converger demain au niveau du pont Saint-Lazare pour prendre la direction de direction Dakar. Demain, à partir de quinze h une structure sera mise en place regroupant tous ces candidats et nous, appelons tous les autres candidats qui ont été recalés lors du parrainage. Nous appelons la société civile, les forces libres de la nation à venir se joindre à cette structure qui est extrêmement importante. Puisqu'aujourd'hui, le Sénégal est euh, à la croisée des chemins. La situation est grave, le président de la République qui, comme l'ont précisé certains candidats, est en train de faire un coup d'état constitutionnel et si on laisse faire, cela va aboutir. Il appartient au peuple de reprendre sa souveraineté. donc pour tënk ko ci wolof gudd na ba pare candidat yi nga xam ne nii ñoo fi daje ak ñi nga xam ne nii bëggoon nañu ñëw te jotuñu ñëw dañu rejeter systématiquement décret boobu nga xam ne nii président de la république waxee na ko mooy remplacer décret bi convoqué yi bu ñu ko rejeté loolu mooy le processus électoral dafay continuer processus électoral bi continuer dafay signifier que tey à minuit campagne électorale bi dafay commencer et donc loolu moo tax ñu jox rendez à tous les Sénégalais demain point de convergence bi demain la ci pont wu Saint-Lazare pour ñu jël VDN bi jëm dox Dakar beneen bi moo di candidat yi nga xam ne ni ñoo fi teew ak ñi jotul mën ñëw dinañu mettre en place benn structure boo xam ne nii danañ ko waxtaanee euh, fu ñu ko waxtaanee ba pare dinañu informer presse bi mu nekk structure boo xam ne nii danañ ci woo ñëpp ñu ñëw dugg ci puisque nekkul seulement l' affaire des candidats mais l' affaire de tous les Sénégalais. ñu ngi noté comme vous avez peut-être pu le constater la présence du président Mamboy Diaw bi nga xam ne nii euh, dafa feebar et malgré le fait qu'il soit malade ñëw na teew waaye dafa ñaan feebar bi moo tax nanguwul. du euh, mën a jël kàddu parce que il est très souffrant donc loolu moo nekkoon lu ñu leen bëggoon wax donc rendez-vous demain à 15h sous le pont Saint-Lazare direction Dakar merci pour votre.